lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki waa àdduna bi eh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar eh, di leen jox seen wàccuwaay eh, di jiital ci nuyoo beeg ziar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke indi sëriñ Basiru ñaan yàlla sa borom yàggal ko fi lool Mbàkke bala ba yéene ji mu am ci liggéeyal ñaari maamam yi mu defee ko nu kowe njortam ci barke xaadimal Moustapha euh, di am mbégte kontante nag si teewaay gi ñu teew fii euh, li ko waral mooy di waajal daayira euh, màggaluk maam Mariamatulaa gi nga xamante ne bii lu yëngu ci yoonu mu murit rek bis bi moo ko waral yaay faal yi nga xamante ne bii nag ñoo nekk Argentine takku doon ay baay faali maam jaara doon ko liggéeyal ba tey ñuy waajal bis bi ñu ciy woo képp koo xamante ne kii yaa ngi fii ci Argentine di jiital ci woote bi nag euh, sëñ Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xamante ne bii moo fi teewal Serigne Touba ñu ngi koy woo bu baax ci bis bi. Euh, di ci toftal Serigne Yankuba Jigéey mi nga xam ne moo jiite fédération bu fédération bi euh, suñ ko tuddee rek mel na ne tudd nañ buntu Serigne Touba yëpp ñu ngi ko ciy woo. di ci woo suñ mbokk yi nga xamante ne bii dañ fee bokk nekk te lépp lu xew ñoo koy ànd muy sëñ amadu Ba mi jiite daayira Tijaan yi ñu ngi ko ciy woo. waaye fàttewuñu benn yoon Serigne Mourtala Touré mi nga xamante ni bii moo fi toogal waa kër Serigne Moustapha Bassirou te liggéey bi boobu ba léegi ñun ak moom ñoo ko àndante ñoom ñëpp ñu ngi leen ciy woo euh, kenn ku nekk nag amoon nañ yenee tudd ko mais bu ñu tuddee jëwrin yi rek yóbbaale na ñi ci ginnaaw ñëpp Eh, di ci woo tamit suñu mbokki soxna yi nga xamante ni bii mooy daayira maam fa waardu yole bi eh, ca njiit muy soxna Daba Seck ñoom it ñu ngi leen ci woo ndax lu fi xew lu nekk ñoo koy àndante kon ñu ngi leen ci woo bu baax a baax mu mel na nag ñi toog ñëpp ñooy ñuy jëwrin eh, dañuy dugg ci biir rek jox leen ñu yëkkati seen i kàddu ñu xamal ñu bis bi nan lay tëddee. asalaamaaleykum taal bi yi mbokki jullit ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu ñi nga xamante ne nag ñoom la fekk fii di woo nag képp koo xamante ni rek yaa ngi nekk Argentine ñu ngi lay woo si màggalu maam jaara bi euh, ci woote bi nag ñu ngi ciy jiital sëñ Moutala Touré mi nga xam ne ñu nag moom ñu bokk liggéey boobu ba léegi macha allah di ko dox di ci teg suñu jëwrin di sëñ Yankoba Gueye di ci teg Baye Jili di ci teg sëñ Adama Ndiaye di woo ñëpp nag di woo sama moromu jigéen rek di woo Ndeye Khady Gueye sama doomu ndey sama xarit ñu ngi koy woo bu di woo ñëpp nag waa Cordoba Mendoza Catamarca woo nañ ñëpp waa di préparer bis boobu nag am ñu dul bis boobu rek liggéeyal Serigne Touba jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokku taaliba yi maa ngi leen di di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay di leen woo ci màggalu maam jaara gi maa ngi woo bépp jigéen rek bu jugi bu kii ci Argentine ñëpp maa ngi leen di woo man la jànday xadi di ci woo sëfi Thiam sama seex di ci woo ñëpp faatu boobu bàyyiwuma kenn ñu ngi woote ci màggalu maam jaara gi ne ñëpp ñëw bàyyiwuñu kenn murit tiijaan ñëpp na ñëpp ñëw bàyyiwuñu kenn ñi sant bu baax nag wax dëgg yàlla kontaan nañu nag ci studio bii ñu ubbi tuddee ko Massar Ba suñu xol sedd na ci guy barki Sëriñ Tuubaa suñu xol sedd na ci guy dëgg yàlla yal na yàlla def ko mu nekk ay studio studio ci daraja Seydina Mohamed. asalaamaaleykum mbokk julli di mbokk taalibe ñoo ngi leen di nuy bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñoo ngi teew fii ci studio Massar Ba di waajal màggal poroxaan di ci woo suñu mbokk soxna yi nekk si àdduna bi yëpp di woo ñi si biir Argentine di woo képp ku nekk si latin bi rek ñoo ngi lay woo si màggal poroxaan bi di leen nuyu te di leen ziar di woo suñ mbokk Baay Faal yi di leen wax liggéey bi moom teg nañ ko ci seen loxo ñoo ngi woo ñëpp daal ñu benn daayira bàyyiwuñu benn tarixa ñoo ngi woo ñëpp di leen fàttaliwaat bu baax le 28 mars moom bi soxna jaara bi salaamaaleykum sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox kenn ku nekk sa wàccuwaay di leen woo ci bisu maam jaara bi la 28 e, ñu ngi koy defee kachaawo di jiital nuyoo bi sama sang bi Assane Baye Fall jëwriñu Baye Fall yi di jël liggéey bi di ko teg ci seen loxo ñu jàppal ñu gi di nuyu e, sëñ Yankooba ak. sëñ Moutala Touré mi nga xamante ne depuis boobu ba léegi mi ngi ànd ak ñun ci liggéey bi di leen ziyaar yéen ñëpp di nuyu suñu mbokk tiijaani suñu mbokk xaadir yeeg laayeen yi bàyyi ñu kenn mu ngi leen di ziyaar yéen ñëpp. asalaamaaleykum ñoo nuyu suñu mbokk jigéen yi di nuyu suñu mbokk taalibe bi di nuyu sama mbokk waa kër Cheikh Mouhamadou Fadel yëpp di leen ziyaare di leen fàttali suñu bis bi ñuy waajal bisu Poroxaan le 28 mars. di woo ñëpp daal bàyyiwuñu kenn di leen ziar diwoo woo yi nekk fii yëpp ci Argentine suñu càmmiñ yeeg suñu mbokk jigéen yi ñëpp maa leen di woo ci bis bi ci bàkk Sëñ Fàllu auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu sant yàlla julli wàcc Seydina Muhammad di ñaan yàlla bés bi ñu dëgmal ñu fekkee ko si jàmm duggee ko bisimilah rahmaani rahiim eggale ko ci alhamdulilah rabi alamina muy bésub soxna jaaratulaa ñu am ci mbégte ak kontaan muy suñu bés ñu jigéen ñëpp ñi ngi siy woo bépp soxna ak bépp baay faal ak bépp tarixe ñu ngi leen siy woo di ñaan yàlla daal yell yeggale kook alhamdulilah rabbil yaakaar naa suñu jëw jëwriñ wax na lépp kon dañuy gàttal kàddu yi rek di tuub tey jégalu bu baax a baax bis baa ngi noonu noonu lay tëdde incha allahu rabbi bu ñu xëyee daañu fa amal njàngum alquran ak xasida euh, daañu fa amal bépp xeetu bernde boo xamante ne bii rek day bégal ab jullit daañu ko fa defal euh, jàng alquran jàng xasida ñu ngi ciy woon nag kuréeli xasida yi nekk ci algentine yëpp ñu ngi leen ciy woo Euh, fàttewuñu benn yoon nag euh, sunu mbokki baay Fall yi te jëwriñ jëdi Assane baay Fall euh, ñu ngi jël liggéey bi yëpp di ko teg seen loxo ndax boo ne liggéeyal Serigne Touba rek xel yëpp dem ci Baye Fall yi kon liggéey baa ngi noonu ak waañ wa yéene boroom bis bi nag mu ngi noonu di ci sàkku teewaayu képp kuy wax asadu an laa ilaha illallah asadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci bis bi képp ku nekk fii ci Argentine rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.